am na benn programme boo xamante ni ministre du commerce. da nii. Mm. Euh, di Abdou Karim Fofana. Mm. bi mbir mi mm. ci saa moom dafa jubal si Touba. moom fi njëkk. mais am na benn programme boo xam ne programme de euh, loo xam ne dañuy yeesal marché yi. mais am na nu mu bindoo noo xañ na. Euh, dafa am lu particulier. ndaxte yeneen marché yi. espace public la. boo xamante ni état bi moo koy moom. wala maire bi moo koy moom. mais fi ne fii boo xoolee ni mu bindoo nit ñi. ñoo ko moom hmm. te loolu dafay laaj nag waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko séqal hmm. diggante maire bi diggante borom place yi borom kër yi nga xamante ni dañ fi def place hmm. waaye tamit ak ki nga xamante ni moom mooy ministre du commerce loolu waxtaan la laaj mais su doon espace la boo xam ne dañ mën a ñëw rek daaneel lépp. Mm. daal di koy defaraat loolu beneen mbir mm. mais ni mu bindoo la. Mm. mais du tey lu nekk rek dañ ciy wut jàngat. lii am nii tey tamit jaar na laaj jaar na ñu waxtaan. jar na ñu xool yan yoon la ñu mën a jaar. ba yéen ñi nga xamante ni yéenay borom place yi. alhamdulilah bi ngeen xamee ni am na nécessité. pour ñu defaraat. parce que defar boo gis dina am loo xamante ni dina am euh, ay inconvénients yu ci nekk. mais loolu yëpp dañ koy waxtaanee ba si tënk te wax léegi président de la république yëg na ko Euh, bi lakk bi amee ñu dal di ma ko yëgal ci saa si dama ko woo bi ma ko wooyee mu ni ma na nga woo sëriñ bi nga xamal ko ko sëriñ bi man maa ko yëgal sëriñ Mountakha man maa ko yëgal woo naa ko jot ko téléphone wax ko ko ba pare ni ko jot naa ndigalu président de la république ci saa si ma dem Touba su ma demee wax ak euh, général bi fekk boobu ñu ngi coordonné téléphone lépp lu ñu am ci ay moyens ak secours yi wër Touba ci saa lañ ko dal di yabal ñu ñëw fii moo yàggul. te mënoon na gën a métti. kon ñu ngi masawu. ñi nga xamante ni dañu yàqule. waaye sant yàlla. bi nga xamante ni tamit ci saa si. état bi organiser secours yi. ci ndigalu président de la république. ak ci coordination premier ministre bu mu gën a gaawee. loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa la ko wax. te xam naa ni liggéey bi dinañ ko wéyal. ànd ci ak gouverneur. ànd ci ak préfet mais ànd ci tamit ak sapeur pompier ak gendarmerie ak police yëpp. loolu bëggul wax di leen gën a masawu. waaye di leen wax tamit ni loolu yëpp dinañ ko ànd xool ensemble incha allah. incha allah délégué euh, Serigne Seydi Dia.